قلبي وقال في بالوجه المصطفى te ñu gis ne tey euh, sëriñ bi yaakaar naa ne tey euh, yaatu mbindam ci wàllu tagg ndax ni nga ko waxee donte da koo jagleeloon juróom-benni weer terewul ci biir xasida salaatu yi ànd ak ay tagg muy lu am solo ñu gis ne tagg yooyu nag wax nga sànq jeexit yoo xam ne tagg da koy am ci doomu aadama ñu gis ne kon téere sëñ bi euh, mënees na cee am ci yonent bi salaasam ak cofeel gu yéeme ci ni ko sëñ bi taggee ba ay jikkoom ak melokaanam ndax bu ñu demoon ci lu mel ni jës bul weesu na jikko yi day mel ni jëmm ji sax la lay misaal ba nga mel ni boo doon jeneer jeneer da ngay jàkkaarloog moom ñu gis ci itam euh, tumuranke euh, xeeti taggiin yi nga xamante ni day mel ni ñi gënoon xereñ ci arab yi sax maanaam euh, dina doon xeet yoo xam ne dañ koy yéem ci sëñ bi ci jekku gi mu jekku làkk yi nga xam ne wax na ni rek boroomam moo ko moo ko ko may jërëjëf sëñ Cheikh Mouhamadou Lamine xam nga euh, tagg ci sëriñ Touba. Mm-hmm. yi mu doon tagg yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mm-hmm. niñ ko njëkk a junjee dafa làmboo yu baree baree baree bëri am na loolu sax buñ ci duggee day gën a gudd borom xam-xam yi nga xam ne ñooy jàngale wàllu way mm-hmm. ak li ci aju am na ñoo xam ni dañuy jàpp ne tagg bu dee ku fi jóge loolu duñ ko tuddee matta mhm. risa lañ rasa lañ ko tuddee mhm. mooy mar li ñuy wax marsiya mhm. waaye rasulullahi sallallahu alayhi wasallam sëñ Tuubaa moom daa jàpp ne dafay jógewul moom rek ju sell ja ah, moom lañ denc ca Madina waaye xam ko sell ga mi nga am xudóor bu mat sëkk teewaay bu mat sëkk ci àdduna sépp moo tax lii muy mu muy muy wax ci moom mu tuddee ko mataxu ñaareel bi itam yëmul rek ci wax melo yónente bi mhm. ak i jikkoom mhm. waaye jëmmi yónente bi itam mhm. ni nga ko waxee léegi da koy da koy da koy da koy misaal di ko melal ba nga mel ne yaa ngi jàlloog rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam loolu nag boo ca dollee jàngale gi muy jàngale diine itam ci biir tagg yi muy tagg yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nga xam ne xasida xam-xam yi boo ko boo ko tegewoon ne jël xasida tagg yi rek danga ci mën a xamee mbooleem diine ak siira yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ak xew-xew yi am ci dundu yonente bi ak lu baree bari loo xam ni loo xam ni loolu nag boo ci dollee nag lim ci def li mu takk diwaan yi nga xam ne moo am noonu liñ ci xam rek nga xam ne eh, ba jamono ji xamuñu ku bind lu toll noonu ci rasulullah sallallahu alayhi wa moo tax mu sañ wax ne raditu anil baaqi wa an xayri xalqihi wa fi yi jaawastu kaaban wa xassaana ña doon tagg yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci jamono jooju lañ jot a tagg mhm. nga xam ne dajale nañ ko ci ay diwaan sëñ bi li mu def ci tagg yonent bi sallallahu alayhi wasallam weesu na ñun ñëpp la ñu def ci ay ay ay ay tagg mhm. jëmmi tagg yoonte bi itam am na yeneen i fànn mhm. masalan léeg-léeg nga gis mu wax ne wajjahtu madaxi li jamilin abhaja wa dikru fadlihi gada li manhaja tudd nga nee li rasulullah sallallahu ak di ko fàttali ak di ko wax ak di ko euh, way mm-hmm. nee na loolu mën xëj la ci man maanaam yoon la anam la ci anam gi nga xam ne ci lay jaare mm-hmm. ngir jàng diine ak jàngale ko ak tasaare ko mm-hmm. léegi sax mu wax ne ñooy samay ngànnaay maanaam tagg yoonte bi jaasi la joo xam da ci xeex ak noonu yàlla oh. wax ne lillahi hamdi walil maahi nabi midahi walhamdu wal madhu asiyaafi wa armaahi tagg gi mu tagg yonente bi ñooy samay yi ñooy samay xeej yi nga xam ne ñoom lay xeex ak noonu yàlla yi am na feneen fu wax sax ne madaxtu rasulallahi madaxan mudammiran adu bi tagg ah, yi may tagg yonte bi mooy day màbb noonu yàlla yi da leen di mabb am na feneen fu wax ne zintu makatiba tadu taduumu rasida kulla muaadin nga xam ne dañuy fuglu noonu yàlla yi di leen indi di jafe-jafe kon tagg dafa am ay ay ay wàll ak ay fànn ak ay wet yu baree bari ci biir waxi sëriñ bi ak biir mbindum sëriñ bi ni ma ko waxee léegi itam sëñ bi dana wax melo yonente bi waaye léegi itam mm-hmm. mu mu mu mu mu wax ci jëmmi yonente bi melal na ko mm-hmm. ne jësbul xulóob bi nga xam ni mm-hmm. boo ko jàngee da a mel ne comme janloog rasulullah sallallahu alayhi wasallam gis nañ léeg maam bayit yoo xam ne sax day boole ñaar yëpp ñaar ñaar yëpp mooy wax ay jikkoom ak waxi meloom ak wax wax nag jikkoom mooy waxuwa ak malul waraa xalqan wax xulqan dëhara wal mithlu qattu lam yura walan yura fi chiyami xam lool ci ci ni te loolu mooy li muy ni muy doxee rek mooy ci melo meloy jëmm ji ak meloy xol yi ak jikkoy biiram loolu mën mën naa feeñ itam ci li wax ne mu jamilul muhayya zakiyul xija mabarrun maazun li kulli tarix jamilul muhayya nga xam ne melal na xarkanam bu yonente bi sallallahu alayhi xarkanam bu bu rafet bu taaru boo xam ne lépp taar da daje waaye zakiyul xija xel mu ñaw itam la amee woon moom rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ma barrun maadun li kulli tarix nga xam ne ak mbaax léppi mbaax it da ko dajale woon gis nga xam ne bayit boobu boo seetloo boole na wet yooyu mm-hmm. gis nga léeg-léeg ci misaal euh, mm, masalan jëmmi euh, melo yonente bi ka anna maa addahabi mm-hmm. fi xaddihi almuhadabi wa kaana sabta alqasabi irniinuhu du chamami kaamilu udnin adaaju wa ashnabun mufallaju wa ashkalun mubtahiju wal wajhu maaxil xumami nga xam ne jëmmi xar kanam yonente bi sallallahu alayhi mboolem melo ya ca ne yëpp sëñ bi dajale na ko ci bayit yooyu wax euh, li xam ba nga xam dafa mel ne ndoxum wurus lañ ca sotti ci leer ga ak euh, nga xam ne yonente bi xar kanam ba du woon xar kanam bu bu doon xar kanam bu kuppandalu bu jekk mhm. boo xam ne bind ba ko suñu borom bind dafa wuuteeg ñëpp ci bind mm-hmm. sëñ bi sax am na fu mu ko mel boo xam ne wax ne mm-hmm. jëmmi xeeti day mel nga xam day mel ne xeeti couleur yu yi ci àdduna bépp daje ci moom a mm-hmm. wax ne daa xonq mënu wax ne daa weex mënu wax ne daa xeereer ndax asmaru wa asmar asmaru xam nga wax na ko mm-hmm. mooy nii africain yi mel kon xeeti melo yi melo melo yi ci àdduna si yëpp la yoon la suñu borom dajale la woon mm-hmm. yonente bi sallallahu alayhi wasallam jox ko ca nag wenn melo woo xam ni kenn la woon koo xam ni amul amulum kem ci ci ci ci ci wet yooyu mm-hmm. loolu kon ci biir tagg yonente bi sallallahu alayhi wasallam eh, gi sëñ bi doon tagg yooyu yëpp mi ngi ci boole kook nag làkk bi nga xam ne nag ni ma ko waxoon léegi da koo jekku di ci wax wax joo xam ni. ña ko nàmpoon sax lott nañ ci ci ci ci ci wax ko. boole koog itam ni liñ doon junj léegi. mooy sëñ bi dafa bo tagg yonent bi. Mm-hmm. da ko jàppe bor boo xam ni da ko gàll boppam. Mm-hmm. damintu lil muxtaari kulla aami daynal madaayix ak mu ne damaa ameel yonent bi borub di ko war koo tagg. Mm-hmm. moo tax moo gis moo tax loolu moo jur xasida yu bari yi nga gis nii. ci biir itam. waxam da ngay gis ne maanaam tagg yonent bi sëñ bi da ko jox beneen beneen maanaa mu gën a kawe ndax léeg mu wax ne mboolem sama daraja ji ma am ci tagg rasulullahi laa ko am léeg-léeg sax mu ne jëmmi tagg wi ci moom mooy daraja ci man mm-hmm. mm-hmm. ganimati taxsiinu madxil mujtaba mm-hmm. duuna ittixaadi fiddatan wa dahaba ak li mu wax ni madxu rasulillahi sallallahu alayhi bil ali wa man qafaahu mm-hmm. martabati wa zinati wa mm-hmm. jaahi bihi arumu ma ladal ilahi tagg yi muy tagg yonent bi sallallahu alayhi wa nee na mooy sama daraja mm-hmm. di sama waajtaay di sama li loo xam ne ci lay sàkkoo la ne fa sun wa taala loolu yi da nga ne kon jox na ko euh, beneen wàccuwaay. bu mhm. gën a kawe. Mhm. léeg sax mu wax ne man jenn wax rek laa am muy tagg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam <laughs> madxu nabiyil muntaqa kalaami mhm. wa fil ida anka min al kilaami <laughs> samay wax waaye wax jii ma ciy wax nag moo raw jam-jami xol ci biir noonu noo yàlla yi xam ne eh, lu bo fi ne léeg sax ni ma ko waxee mu ne mooy mën hëjam waaye léeg mu ne mooy mëzhabam mëzhabam ngir mi nga xam ne moom la topp ci diine mooy jaare ko ci tag tagg rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam man wax ne li gayri rabbi bin nabi lam azhabi mhm. wal madxu saara daydani wa mazhabi mhm. mooy sama aada mhm. maanaam ñooy sama aada waaye mooy sama mazhab itam léeg-léeg sax mu àgg ci wax ne ñooy sama mooy sama sariya maanaam tagg yonent bi sallallahu alayhi ci man yoo xam ni faw ma di ko di ko topp faw ma di ci jaar faw ma di ci nekk aslamtu nafsi li rabbin jalla an waladin maa alladi matahu shar'i wa aadaati madhu nabiyil mustafa sulooki maanaam muy sóobu yoon wa jëm ci yàlla loolu ci madhu rasulullah sallallahu ci la ci la ci laa koy defee léeg-léeg sax mu wax jaamu yàlla ci boppam la ci man madixuka yaa xayral baraya ibadatun yanaalu bihi l fawza daama yamdahu aljana la ci man moom tagg nekk di tagg yonente bi ak di wax ci moom loolu aljana la ci man mhm. aljana adduna la ci man di wax ne eh, madxuka yaa xayral baraya mulki summa salaati alayka milki ak wax ne madxu rasulillahi saara mulki wa jannati mhm. wa junnati wa fulki mooy gaal gi nga xam ne itam ci lay jaare ci biir eh, géeju adduna gi mhm. ngir wuti suñu borom tabaraka wa taala kon moo tax nag léeg-léeg ñu gis mu wax ne jëmmi mën a toog di tagg yonent bi di tudd turam woowee mhm. moo xam da ngay julli ci moom wala ngay tagg ci wala nga koy tagg mhm. neen loolu du lu woyof bu ko kenn woyofal neen loolu tawféexi suñu borom la neen mhm. def gi ma koy def <laughs> xéewalug suñu borom la gu ma suñu borom xéewale tawféex la joo xam ni moom ci mbaaxam kese la ma ko defalee gis nga waxin woowu nga xam ne wax ne dicru nabiyi l moustapha bil aw bi salaati qismati wa ribhi dalika fadlullahi yuutihi li man yashaau min ibaadihi xayra min dalika lam ajidhu bi taxayuli loolu ay pexe mayu ma ko bal nit bal niltuhu bi maxdi taxsiisil ali dalika nicmatu ilahiya alkarim wa innani an shukriha lastu arim daka alladi tayaba nafsiya kama aqarra ayni wa shakartu nicma boole kook nag sëriñ bi bu ma saa di tagg rasulullahi da koy booleeg teggin yu mat sëkk ak mm-hmm. pëstéef ak pas-pas akook sell akook mat mm-hmm. ci la ko daa defee wax ne tafiqtu unaadil Moustapha zaata addubi waaw nga xam ne teggin yu mat sëkk loolu rek war nañ caa jaar ñun ñi nga xam ne ñoo jàng xasida ma jëmmi xasida gi ñu jox war ma loolu loolu am solo la <laughs> nga xam ne loolu sëñ Ahmad dañuy dañuy dañuy may sax ñu dugg ci mm. wax nga ko sànq sëñ bi moom ci boppam mm. euh, moo bind xasida yi mm. moo def tagg yi waaye léeg-léeg moom mi ko def sax mu am fu mu ko yóbbu amul sëkk ndax ndax gis nañu bu ko daan jàngalu daan ko déglu léeg mu wax loo xam ne euh, aalu njàng bi moo koy moo koy indi ci moom mu mel nii kon euh, jeexit yi moom moom mi ko bind sax ci boppam euh, doy doy doy doy na ci misaal muy nag ab soññe bu am solo bu jëm ci ñi nga xam ne ñoo koy nettali muy jànkat yi ci seen melokaan ak ci niñ ko war a wagaree ak sellal gi waaye itam teewlu gi nga xamante ne day mel nii buñ koy jàng baax na ñu xam dayoob li nga xamante ni moom lañu tiim. li mm. ci di di ko di ko nettali. amul sikk. Mm-hmm. xam nga euh, sëñ Tuubaa doon maanaam léeg wax ne mooy képp positif ci yàlla sakk. <laughs> borom positif <laughs> te euh, di jëmm joo xam ni. Mm-hmm. li muy def nii te di ko defal Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. Mm-hmm. da da ko da ko jox yitte ak gëdd gu rëy a rëy rëy fi mu ne jàng xasida bu ñu ko mësaa def di def ci kanamam du nangu kenn wax. bu buñ tàmbali bu déggee kuy wax sax day day taxawloo jàngalekat bi jàngkat bi mm-hmm. loolu sëñ Cheikh Sarr am na lu ci nett li ndax day wax kii jàng na taxaw mm-hmm. mu wax ak ñooñee doon wax ba noppi ñu ñu ko àggale mm-hmm. eh, ni nga ko waxee itam jëmmi njàng mi itam moom mooy ki def xasida yi waaye bu ñu commencé di jàng ci wetam da ko yóbbuwaat ci xaal bu sori dinay dégg ñuy net li ne mas nañuy jàng fi wetam mbooloo moo xam ni ab kuréel waaye eh, ba ñuy jàng ba ca digg ba mu yónni sëñ ma sàmba ne ko demal ne leen ñee dey ne leen yàlla gërëm na leen <laughs> nee na ba yàgg mu yónniwaat ko ne ko ne ne leen yónnante bi sallallahu alayhi wasallam gërëm na leen <laughs> ba yàgg mu yónni ko ne ko ne leen bu leen neexee dañ tàbbi àjjana bu leen naqare dañ tàbbi àjjana <laughs> nga loolu day gis ne mbégte moo moo moom la am ci njàng bi mm-hmm. moo ko dikkal itam ci mm-hmm. biir jàngiñ ko jàngaat mm-hmm.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 loolu nag moo tax yonent bi sallallahu alayhi gis nga bi nga xamee ne Kaab ibn Zuhayr ñëw na tàgg ko mu simmi mbubbam jox ko mhm. sëriñ bu mag bi itam keroog bi Cheikh Sidiya Baba waxee ci moom ne ko yarda mhm. ida jarati l umuuru musalliman ilman bi anna ilahahu ajraha laa taxjubi l asbaabu anhu xaqiqatan intaha fi zulumatiha mantaha mhm. dafa wax ne al aana madaxana <laughs> nga kon wax jo jeexital na ci moom <laughs> moom de fi mu moom tey nag tagg nañu moom ah, al aana madaxana kon jëmmi way jeexit jooju la am loolu nag bu ca euh, boolee jóge ci xolub Sëriñ Tuubaa nag mhm. dafa am nag jeexit yu gën a rëy mhm. yu ci ne yoo xam ni ba jamono ju ne rek saa yu ñu ko jàngee rek mhm. mu yëngal xolub mbooleem koo xam ni euh, xolam dara ci leer leer ma nga ca qalbi wa